mais tamit dañuy dugg rek duggaat ci problème sëy yi temps yi sëy yi am na problème sama sama jëkkër lii sama jëkkër laa dan nga ko gisee. waaw dañoo jiiñ lépp rab. Mhm. am na lu rab def am na lu seytaane def. Mhm. waaye am na loo xam ne feebar la. feebar bi moo dal góor ñi. lan mooy feebar bi. ñàkk ngóora yi. Hmm? ndax dañuy dem fekk sëriñ soo xamante ne ni amul ngóora ñu naan ko fajal ma sama ngóora. sëriñ bu amul ngóora nu mu lay fajalee ngóora. non waxal. kon ñu ci ku amul ngóora. Mhm. lay fajalee ngóora. kon ñu ci bari euh, ci ku ndoxum siti ba yàqu nan la lay fajalee ndoxum siti sëriñ boo dem fekk ko bopp ba karaas muy wokk fu nekkam. Mhm. nga naan ko fajal ma ndoxum siti waaw wala déet. Mhm. ngóora yi. soxnaay daa ko faj. wàllum yokk bi moom nu mu demee. yokk bi mooy ñi am xam dañoo rasule am na ñoo xam dañ koo judduwaale am na ñoo xam am jabar am ñoo xam ne gel sax ñeme koo am. Hmm. ndax ba nu juddoo ba léegi seen bagage dafa tuuti am ñoo xam dañoo dem ba mu yàgg mu dab leen. ñu am gelu rab. ban kéemtaan nga ciy def. kéemtaan bi mooy sama produit yi foo mënti nekk da lay indiwaat une centimètre laa lay fekk wala demi centimètre indi la trois centimètres xanaa soxna ay daal laa social mun taa weesu lii. Mhm. góor gu toog di xool sa jabar mënaloo ko dara ñëpp yi ngénte ngénte woo. Eh, soxna Ayda fexe ba nga ngénte dangay ngay am ñoo xam ne dañuy jël teg benn mesure ne ñi lay toll soxna Ayda am na ñoo xam ne dañ daan dugal firidoom am na góor ñoo xam ne dañ daan dugal di denc seen i bag pour sol costume mu am jëmm nekkate dañuy protéger wu comme ni xale jigéen yi di def bu ma doon maa mënoon a doon xam naa ne maa raw hôpitalu CTO la muy rocc ci dam damm su ma doon baraakee li ma yor ciy firidoom nga joom mi da ngay gis ku ñëw jiital Hippolyte lay dagg jiital tubéyam ba mu del sol jiinam mu am jëmm ndax yëfi kat boo amul dara. Hmm. boo solee jin day surux moo xale bu jigéen bu tuutee bu sol si payam. affaire dafa am ay secret de. nee naa daal hmm. ku mun ta faj boppam bu ne danaa la faj. Hmm. waxula lu am yenn saa nga gis koo xam ni man nag du ma étranger jógewuma ci dëkkub jàmbur. ñëw ci dëkk bi wutum néeg. déedéet damaa jóge fii soriwul dara. di góor góorlu di sëy di muñ. di wut benn néeg ak ñaari néeg di seetee xoltu gerte jamonoy huit mille ak baaba maal ba ndimbalu suñu borom daf ma ma toog suñu borom ma dimbali dama koo judduwaale sama yëfi kër maam fekk si ma ñi xam ta xam sama kër maam yi ma leen limal nanu xool ku ne mën na faa jóge waaye dama koo teg ndimbalu suñu borom donc en direct. mais mais sa mën nañoo xam maanaam génération bi ban moo ci ëpp. dix huit ans. dix huit ans ba soixante ans. mais 18 ans xanaa ñooñu dañuy fooyee seen bopp. mooy ñuy fowee seen bopp am na xale yoo xamante ni seen bagage yi day xasan ñuy fo seen bopp di fo ci seen bagage muy tuuru ba la ñuy desee du desee dara bu ñu tollee ci am soxna wala ñu toll ci am leneen dañuy jékki-jékki fi mu ne nii feebaru bolotement ma dimbali gaa ñi. dimbali leen waaw weer yi. Mhm. la ma waxoon deux mille 2020 moo dikkaat de feebaru bolotement jànq ji di ngelawal meer yi ngelawal boo toogee safar di ngelawal xale yu góor yi seen kanam yi di xasan ñuy wokk muy neex. du ñu xam lan la yu ay xeeti feebar la ak tànk yi metti jàpp óom hmm. bët yuy metti jàpp bopp loos ndigg luy metti hmm. ndigg luy metti muy góor muy jigéen ñépp a ko am waaye sama garab gi lu ne la ci mën bolotement hmm. bolotement boo naanee garab yi fibrom seet si soxna soxna Aida li mu yor du jeex soxna Aida nag daa deful li seetkat yi di def di woote ay poromo di fay 10 000 di wane ay bagage sama ka uti kiraami kiiraama yii moo rey gaa yi ba nu dee ku fi nangu ñu lay wan ay kiraama kiraama borom da koy denc. nañu seet mbir mi fi mu ne te ba naxante bi. fii bu kenn nax kenn soxna Aida nag daa jug ak lu bees tàq ku ko ci moytuwul da lay ñaf <laughs> liggéey bi kenn du ko yàq. Mhm. dañu koo soxla. soxna Aida nag liggéeyam ku ci mer da ngaa fekk da ngaa yàqamti. ku ci mer ku ci mer. Mhm. daa fekk da yàqamti te jàpp naa ni kenn merul ndax ñëpp apprécier mhm. ndax seet gi. li ñi ma soxla bari nañ te hmm. bëgguma kër gi di am rang hmm. may déranger ñi ma dëkkal dama leen di jox àq hmm. kër gi dama fee nekk ak sama njaboot te aussi it damay sëy femme laa benn temps bi sama liggéey moo ko moom benn temps bi sama borom kër a ko moom li saxaar nag diggéewuma ko kenn ku la ne maa ngi lay li saxaaral li saxaaralu la day lekk ay ginaaram moccaat ay yaxam yor crédit am yow ngay nelaw di xaar say résultat doo gis dara fekk jeeg baa nga ca ginnaawam di ko di di di ko bës bu yeewoo fudd naajee yeewu. Mm-hmm. booboo nag moo gën a doy waar maa ngi lay li saxaara mm-hmm. nga woote 10 ñu ne la ci kanam tuuti damaa ne ci kurus gi newuñ ci kurus gi ña ngi ca seeni jeeg mm-hmm. am na ñu mën de waaye ak a bëri saay-saay <laughs> ñoom ñëpp a jeexal maniru bu jeexal maniru nan la la mën a doolee maniru ñoom ñëpp waa bari na ci bari na ci ñoo ñi ma gis fii ñuy talaxu ñëpp ay saay-saay kese ci ne ay bandi rek lañu hmm. jabari jàmbur yëpp vidé nañ leen jabaru jàmbur mm-hmm. jeex nañ lan ngay wax ñooñu nañu réglé te bàyyi seen pomi koo ci gis tey mu sol vaal bu subaa jasneer lay sol mm-hmm. yor ay gàddu kooram sécurité bi man am naa ñaari sécurité waaye guddi la ñuy génn samay raq lan man mm-hmm. am naa sécurité waaye guddi guddi ñoo may topp sax waaye man bugguma ku ma sécuriser mm-hmm. man Serigne Sall doy na ma ci sécuriser ki may sécuriser mm-hmm. ki may sécuriser mat na ma sécurité li ma bëgg a wax nag ci réew mi ala kulli xaal dinaa ko wax nañu ba seen pomi te jàngi man nag doola kenn jàngalu ma samay kër maam daa fees dellu su ma dosoon sama bopp bi rek ma toj réew mi li nekk ci sama bopp bi sama këri maam hmm. su ma ko yoroon kese toj réew mi réew mi mën naa koo toj keroog bi Sonko xeex bii ñëw man maa génn man soxna Aida ni leen réew mi dina toj hmm. réew maa ngi ñëw te lépp a ngi ci internet bi muy vaar nañ dem vaar nañ dem vaar nañ dem vaar vaar baa ngi nii ubbeeku nañ dem vaar lépp a ngi fi am na date am na heure soxna Aida balaa kenn jëflanteek moom na dem vaar réew mi dama fee liggéey de dama fee calmer lu bari bi réew mi naree tàkk soxna Aida dafa génn wàcc ci géej gi def li mu war a def teg ci nag ndimbalug sëriñ mu taxaa mu baax mi sëriñ mu taxaa mu baax mi nga xam ne bu lay noppiloo dalay booleeg lu la noppiloo bu lay waxloo dalay booleeg lu la waxloo mm-hmm. jëfal nit ñi ci social. père de la nation moom la. lan lom dala l'année. l'homme de l'année. lom dal lanari lanari lanira dañ koo cof dañ ko waroon di xëcc. naan ko lan lom da lanari lanari lanari ay lom da lanari yu bari la. lom lane bii la lom lane ba ñëwagul la ndax li mu liggéey fii ba réew mi dem dootuñu ko fàtte jëfinu sëriñ Saliou rek la fi jëfee mu ko bëgg nag sëriñ Mountakha xoolal borom jàmm ji woo nit ñi ci péex booba soxna Ayda bi mu wàcc ci géej gi benn seetkat daa génn bu soxna Ayda wax Aida soxna Aida ca jaari saw laa génn leen réew mi dafa ànd ak réewum balaa réewum jigéen la li xeeñ 2020 2021 lay xasaw. man maa waxoon loolu le 4 janvier mi ngi sans limite. que mënoo jàpp ne yow chaque mois de janvier ngay ngay. chaque mois de janvier laay toj ñoom balaa kenn toj ndax boobu kenn ku ne mi ngi xaar soxna Aida ci laay toj teg sama bilan lii rek a tax nag may wax. Mhm. ndax dañoo gaaw ci profito te dañoo am staff. staf bu dëgër la nu am ndax dañuy fay staf bi. dañuy fay te yow fayoo kenn. man fayuma droit d'auteur fayuma kenn ndax man li may liggéey ci askan wi lay duggaat. man su ma liggéey damay seet ñi am ordonnance ma jënd gis nañ loolu. damay seet ñi feebar ma faj leen. Mhm. damay seet ñi amul ceeb ma jox leen ceeb. damay jënd surtout maak sarax yi nag da yónnee say million ñu naan nag bi ma la génnal ak bëy wi ma la jëndal ak. Mhm. gëlëm gi ma la jëndal benn gëlëm lañuy jël foto ko fukki foto. kenn ko ne ñu envoyé la ko te encaissé ku ne. waaw da ngay génneel sàmba wooteel ne sàmba yaa moom sarax bi sàmba sa sarax baa ngi nga saraxu sàmba bi moom mënoo ko jox àdduudu mhm. nañuy def loolu yéen laay yee yéen sénégalais yi damaa da ngeen a sonn waa diaspora mhm. da ngay liggéey say junni yow doo tëdd ak jeeg bu rafet mhm. yow doo am oto bu rafet nga jox leen ñoom ñu am oto bu rafet am jeeg bu rafet c'est fini soxnaay ne da leen ko yombalal ku amul xaalis sax faj la ku amul xaalis sax ma jàppale la te yàlla tax. ndax yàllaa ma jox li ma yor. loolu rafet na nee na moom ku amul sax mu jàppale la kon yaakaar naa ne. sénégalais yee ma bëgg. waaw sénégalais ma nam waaye bëgg gun ma bëgg bëgg ma leen bëgg ko raw. wóolu gin ma wóolu. Mhm. nguur gi. Mhm. réew mi. Mhm. yeneen dëkk jàmbur sax damay def état jàmbur waaye kuy wàllu yaan sa dëkk daa tëggul senegal laa gën a bëgg mu am jàmm yàlla na fi jàmm wàcc kuy góor nanga nga ñaari kilo ceeb kuy góor kuy jigéen na nga génne juróom ñaari kilo mburu waxaat ko yi kuy xale bu góor nanga nga génne juróom-ñaari galaas bi su altine. nañ ko saraxe ci réew mi juróom-ñaari galaas kuy góor gu ndaw. Mm-hmm. tollu ci am jabar amagoo doom ak am benn doom. Mm-hmm. dugg trente ans ba dugg vingt ans. Mm-hmm. galaas googu yëpp nañ génne ñett juróom-ñaari galaas. juróom ñu génne ko bisu altine. saraxe ko ca koñ ba ñu dëkk. dégg kuy góor te yor jabar. yor njaboot nekk mag. mu kàllaf jiite kër. samp njël. Mhm. génneel ñaari kilo ceeb. kuy jigéen di yaay mbaa ngay mag mbaa desa sa njabootu yaay. Mhm. génneel juróom ñaari kilo mburu soxna ay daa ko baaxe Sénégalais yi.